may njëkk a def rek mooy déjà di remercier waat aussi mais tey dama am gàcce ak rus boo xam ne euh, régime boo xam ne presque dafa def douze ans mu def benn échec total ci par rapport l'emploi des jeunes lii boo gisee lii répercussion la par rapport ak tey marché bi ñu jógee mm-hmm. nga gis tey jeunes yi nga xamante ne doon doon manifester seen mécontentement par rapport ak réew mi tolluwaayam ak jafe-jafe yi ñu jóge ci loolu Covid 19 daal fi ñoom ñu jël suñu tëj maanaam lu ne teg nañu ko. c'était pour notre bien. waaw d'accord Covid bi mais finalement dama ne entre lan moo faj Covid 19 lan moo ko fi jëlee loolu c'est un point d'interrogation boo xam ne foog ñoom ñu laaj leen ko parce que ba léegi indi wuñ ci réponse donc pour immigration illégale je pense que ñoom seen seen seen échec la parce que tey boo xoolee taux de pauvreté bi nga xam ne moom moo xew Sénégal plus de vingt cinq pour cent en zone rurale et dix euh, euh, bi di taux de bi nga xam ne extrême pauvreté lañu Sénégal donc tey bu ñu gisee tey ay ndaw yoo xam ne amatuñu espoir amatuñu yaakaar ci seen réew ñi nga xamante ne dañu jox 12 ans boo xoolee tey euh, ci ñoom si seen si seen nguur bi ñu jël nga xam Sénégal dañu am confiance ak yaakaar ci ñoom jël dénk leen ko. Mm-hmm. dénk nañ leen tey nattal nañ leen plus de 30 000 milliards yi nga xam ne tey depuis seen seen gouvernance ba léegi nii. Mm-hmm. lan la ñu def li nga xamante ci l'emploi des jeunes tey avec le système bi nga xam xamante le système éducatif bi nga xam ne il est caduc bi nga xam ne tey waroon nañu mën a fexe ba joyanti ko. par rapport à la formation peut-être dëgg la naam am na leen loo xam ne def nañ ko ñoom ci formation mais tey fan rek lañ teg wax na ko tey da ngay jàng ba am master 2 ba pare par rapport ak euh, suñu système bi nga xam ne mi ngi fii te ñoom fexewuñu ba joyanti ko su durant seen 12 ans yi tey boo xoolee tey réew mi fépp lay jooy wëral tey ci mbedd bi nga xool tey ñi nga xam ne tey à 19 heures 20 heures ñi ñi dañuy wër toog di jënd fonde wala cere ñuy rang ci jafe toolu réew mi am na kër yoo xam ne tey boo fa duggee tey benn bool la ñuy la ñuy la ñuy taaj ci bu ci añ bu ci reer wala amaana sax boo xoolee guddi dañ naan la xamal foo jëm te tey boo xoolee tey le secteur le secteur éviter tout ça si si si si parce que tey dañu jël réew mi dénk lañ ko am yaakaar ci ñoom am na ay jéego ñu def pourtant programme xëyu ndaw ñi rek déjà c'est une wax par rapport ak li ñu diggee woon ci ay emploi waaw xam nga tey li ñu diggalee ci emploi tey boo xoolee tey peut-être am nañ leen mécanisme yoo xam ne teg nañ ko fi lu ko ay fonds jub yi nga xam ne teg nañ ko pour l'emploi des jeunes mais tey dama naan tey bu te tey jeune bi nga xam ne mooy ñëw lu ci ëpp ils sont illettrés ou bien ils sont analphabètes je m'excuse du terme. Mm-hmm. mais boo xoolee tey bu fekkee danga ñëw ñu teg ay magasin ne la da nga war a def business plan. te jeune bi nga xam ne tey mënu ko def xamul luy business plan. xamu na lañ koy bindee koo xam ne mënul bind mën a lire noo koy def donc il devait réfléchir xool nan ko nan la ñuy defee tey faciliter ko ba telle sorte que tey le jeune bu ñëwee dina am accessibilité tey par rapport ak tey ma formation ngay xam ne ils veulent un financement énorme mais pour les petits financements compliqué wul tey war nañu mën a octroyer loolu parce que tey boo xoolee tey affaire militantisme lañ koy def

donc discrimination boobu noonu dafa doon doy waar boobu doon na impact boo xam ne tey jeunes yu bëri tey désespoir la ñu am amatuñu yaakaar amatuñu ñoom doon espoir li ñu am mooy euh, cette migration partie c'est des facteurs yoo xam ne tey mën nañu ko souligner facteurs yoo xam ne tey bokk na ci loo xam ne tey euh, euh,

parce que ñun avec le président Hamidou Thiaw ñun suñu campagne fi c'est l'emploi des jeunes et c'est possible c'est la formation parce que ñun lu ñuy proposer tey c'est les STEM c'est les sciences technologies ingénierie et mathématiques ça veut dire que jeune bi tey war na mën a fexe tey ñu former ko comme kilifa li mu doon wax sànq ñu former ko tey par rapport à la nouvelle technologie tey mu mën di créer pourquoi pas defar ay portables pourquoi pas nga tey nga def ay ordinateurs donc c'est la nouvelle technologie tey yoo xam ne tey mhm. la formation ñu privilégier la formation te c'est possible pourquoi pas donc ñun avec le président Hamidou avec parti MPR ñun loolu ñuy proposer parce que nous avons des solutions parce que tey Sénégal boo xoolee li ci gë li ci gën a doy waar mooy dañuy la plupart du temps euh, les livres ou bien bind yu ñu def yëpp c'est des oubliettes c'est-à-dire que dañ koy mettre tiroir bi mais duñ ko appliquer mm-hmm. suñu problème mooy application ak suivi waaw en théorie on est très bien <laughs> moom moom ah, làkk tubaab <laughs> moom <laughs> est-ce que tey jar na tey ñu changer de paradigme. Mhm. c'est possible foog ñu changer paradigme. mais mais mais sur cette question mais aussi avant may dem ci Maodo est-ce que amul yenn question yoo xam ne pouvoir opposition société civile presse dañ ci war a déggoo parce que d'intérêt national la lu mel ni la migration par exemple nga xam ne euh, voilà ñëpp ci war a am benn point comme Covid bi ni ñu booloo woon nekk benn question yu mel ni est-ce que bu amee. yéen tam da ngeen ci profiter un peu euh, pour voilà wane ne gars yi ñooy les responsables pour juste euh, convaincre les jeunes ñu ñu déglu leen davantage waaw ñun lu ñu lu ñu lu ñu mën def mooy c'est-à-dire di ñaaw li nga xam ne mi ngi am di masawu di jaale ñi nga xam ne tey ñoom ñooy ci faatu euh, te am na leen loo xam ne c'est leur c'est mm-hmm. ñoom la ñu dénk réew mi ñoom la ñu jox tey gestion wu réew mi ñoom lañu jël gafa réew mi jox leen ko ñoom lañu jël moyens yëpp jox leen ko donc ñoom ñoo waroon mettre de condition jeune ñi nga xam ne tey ñu ngi fi la formation. la formation bi nga xam te jeune dina toog ci réewam mën fee tekkee ça veut dire que jeune bu demee ba tey nekk ci réew mi juddoo ci réew mi màggee fi jël léppam jox ko jox ko ñi fi nekk ñu jiital leen ba pare jeune boobu amatul yaakaar amatul ngëm-ngëm amatul espoir espoir am dee li mu gis tey mooy tey bu duggee gaal bu demee fee dina am Eldorado. Mm-hmm. tey bu jëlee gaal bi tey bu dépensé benn trois cent mille quatre cent mille cinq cent mille cent mille bu demee fay dina am salaire bu salaire bu baax. Mm-hmm. te ñëpp xam nañ tey Sénégal li ko téye économiquement c'est le secteur informel. ça c'est vrai considérabilité. Mm-hmm. ce secteur informel moo téye moo téye réew mi léegi secteur informel lañ ci def. le secteur privé national ñoom lan lañ ci def ça que le secteur privé national bi nga xam ne tey ñoom dañu jël privilégié tey ñi nga xam ne tey lu ko mel ne tey exemple les étrangers exemple tey boo ñëwee ci Total boo ñëwee tey ci Auchan ci boole tey ñi nga xam ne tey c'est des multinationales d' accord d' il était à l' étranger voilà ñun lu ñuy wax mooy en tant que euh, le parti impair ñun lu ñuy wax mooy ça veut dire que ni tey réew waruñu fi ñëw di ñun loolu la ñu wax. Mhm. compétir waruñu ko fi def li ñu war a def mooy ñëw investir plutôt que compétir ça veut dire ñoom dañuy ñëw di compétir. Mhm. par rapport ak tey sénégalais yi nga xam ne ñu ngi fi tey suñu secteur privé jàppale mu ñu naan ça veut dire que wàññi bi fexe ba dooleel leen tey ñu mën a maanaam te capitaux yi ñu mën ci jot. Mhm, parce que tey bu fekkee le secteur privé. jàppale woo leen taxe bi di leen dóor ak les marchés nga jël ko jox ko étranger yi tey boo xoolee tey suñu secteur te li ko mel ni tey euh, bu dee bu dee total nga jël jox leen marché yu mag yi bu fekkee Auchan la. bu fekkee exemple dans le cadre de l' assurance. oui oui bu fekkee dans le cadre de assurance nga jël AXA jox ko bu fekkee tey économie bi ñoom da jël les libanais nga jël ko privilège jox leen à côté le Sénégal le